jeunesse, Pape Malick Ndour qui est un frère. Commencer une dynamique de mobilisation. Diouf la coalition Benno Bokk Yaakaar compte sur nous. En tout cas, je voudrais remercier et féliciter tous les jeunes, plus ministre de la Jeunesse, appelé davantage à l'unité. Ñun ñëpp ñu bokk combat bi pour faagaagal opposition bi nga xamante ne ñoo leen mën léegi nag. après ministre bi am. derrière le ministre de la jeunesse pour ñu gën a jàppale président